murtajan minnatun lana jariun asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan te di nu déglu tey dellu siwaat nañ sunu jataay bi nu baaxoo amal te ñu ji ànd ak yéen nekk fii ci sunu site bi ñuy wax 24 actu seen émission bi ñu tuddee madinatu ilmi tey ji ñu dikkaat ak yéen ci beneen tomb boo xamante ni dañ cee fas yéene waxtaan ak yéen di ñaan yàlla defal leen jàmm te defal nu ko te di ñaane tamit sunu borom defal nu la nga xam ne moom la wax ci alxuraan allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanahu kon tey ñu dellu siwaat ci benn tomb boo xam bu itteel la xam na ñu ngi waaj di dugg ci koor gi ñu seetlu ci lu bare bari nag ñu seetlu ne promotion la ci ñi nga xam ne dañuy wax ci diine gis nañ ne nit ñi dañ leen di ittewoo lu bare bare bari ci ay conférence di leen seetaan ci télévision yi di leen déglu ci rajo yi ñu am ci programme yu yaatu loolu nag ma gis ci tamit beneen programme bu ci amaat boo xamante ni da ngay xool ñoom ñaar ba xam kan la ci nit ñi gën a jeexital ci askan wala déet muy kaskat yi nga xam ne théâtre yi kat yi dañ koy def ci télévision yi ñoom it dafa mel ni waxtu wii dafa mel ni mooy seen traite moom it nit ñi di leen seetaan waaye nag bu fekkee waxante dëgg dëgg dëgg lañ def dañuy yëg ne kaskat yi théâtre la nit ñi gën a seetaan loolu nag danga nga dut xam foo koy delloo da nga dut xam ne nit ñi ñoo bëggut lu baax walla théâtre bi dafa ëpp ci ñoom njariñ walla déet wala boog ñiy wax ci diine seen waxin dafa des ndax mag ñu jëkk ña nga xam ne ñoo taxawaloon diine ji de du ñoom wax rek lañ doon def waaye dañ cee boole woon ak yeneeni méthode yoo xamante ni yeneeni liggéey yonante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne bu ñuy tudd diine moo tax dangay lim nangami xare yoo xam yonante bi xare na ko boole ko alxuraan di wàcc ci moom addis yi yonante bi àgg ba ne saxaba yi yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci man jotal leen donte benn aaya ngeen xam jotal leen ko ballixoo anni walaw aaya na tasaaroo na mbir yi tasaaroo a ah, saxaba yi dugg fu nekk ba tey lislaam agg na ci monde lislaam fu lislaam àggut amatut fi mu toll kon yow yaakaar naa bu fekkee na nag yonent bi sallallahu alayhi yii leen di wootu mooy boroom xam-xam borom xam yooyu nag dama xamul. mag ñu jëkk ñe de ñoom bi ñuy woote rawatina fii ci sunu senegal gi ay ceddo lañ fi fekkoon ak ay buur ak ñoo xamante ni daanaka rek gëmunu lislaam te réew mi di Sénégal bu nu waxee ñun ñu àgg ci jamono tey ñu wax ne quatre-vingt-quinze yëpp ay jullit la ñu dem ba am foo leen gën a ittewoo ci diine ndax ñiy wax ci diine seen toogaay ay su jógee ci làmmañ ci nopp rek lay yem du fa jariñ dara mag ñu jëkk ña de dafa am benn waay bu laajte woon ne lu tax mag ñi gënoon seen wax ëppoon nu njariñ mu ne ñoom dañ daan wax te yàlla tax ñun dañuy wax ngir bëgg luñ def ci suñuy poos ñoom dañ daan wax ngir bëgg ngërëmal yàlla ñun ñu bëgg ay dërëm ñoom dañ daan bëgg wax ngir nit ñi jariñ ñun dañuy wax ngir ñu bëgg a jariñu bëgg a jariñoo nit kon nag loolu moo jàpp naa ne gàllankoor la bu rëy al aklu bi diine nag dafa am di lekk ci diine te liggéeyuloo diine boo seetloo tey ustaas yi programme yi rajo yi télévision yi internet yi kenn xamul nu tool waaye liy yàqu tey la na a bari ustaas yi sax da ngay yëg ne wax ci jeexitalut ci ñoom ndax doo gis benn màndarga buy xam ne ñoom li ñuy wax mi ngi jeexital ci ñoom boo demoon seen kër seen soxna yi doo gis ñu muuru buñ la waxee ne la mes wala jigéen daa war a muuru boo demoon seen kër seeni soxna de dañuy xeesal am na ci bokk dañuy dunu muuru yi ca war a sàmmante duñ ko sàmmante kon loolu li muy tekki mooy <coughs> nit ki mënul di wax te am na ci ustaas yoo xam ne ni ñuy wax loolu tamit kenn xamul lu mu doon ndax bu fekkee boo waxee mun naa man li yàlla wax yonante bi wax laale waaye li may jëf sa yoon nekku ci loolu loolu loolu du mbir mi noonu du noonu du noonu médecin bi lay faj ne la cigarette wala mu ne la sàngara wala mu ne la bàyyil nangam bàyyil cigarette ndax cigarette day lekk xol day def nangam day wéra di santé nga gis ko moom muy tox wala mu ne la bàyyil guro nga gis ko nga wax ko mu ne la man kat dama la ko aay waaye man nangam nangam déedéet moom mi la koy aay da ko war a bàyyi nit ki li muy aaye nit bu ko bàyyiwut du ko mën a jeexital moo tax jàpp naa ne waxin wi loolu bokk na ci te ñoom li ñuy def daf mel ni yàlla def cee feeñu dëgg dëgg nag dëgg dëgg ndax nit ki bu fekkee buy conférence day fayeeku buy jàngale alxuraan day fayeeku buy jàngale xam-xam loolu kenn du wax naa daa araam de du araam tudd doom sax boo koy def maye ab sëy booy conférence sax am ngay pexe pour ñu jox la xaalis booy waxtaan ci télévision yi wala rajo yi am nga pexe yoo xamante ni pour noo mën a def am na ci ñoo xam àgg naan ba dañuy wut bis boo xam ne dañ koy wutal seen bopp ngir man cee dajale nit ñi ngir fëgg lu jëm ci seen i poos yow bis bu ne yaa ngi waare yaa ngi nekk ci télévision bi di wax di rajo bi di wax looy wutati bis kay di ko wax pour nit ñi dajaloo nit ñi lay doon déglu kay ñëpp nga lay déglu nga bëgg leen a woowaat ban wàccuwaay lan lay jariñ lan ban message lay jariñ kenn du ne daa aay de mais am na lu gën a gaaw nit ki la Cheikh Ibra waxoon ne wër di waaraate wóorut waaye ku la gis waaru loolu moo gën a wóor tey ñoom ñoo ñu di wax ci télé yi wala nga gis ci ñuy ustaas wala ay imam wala ñenn da ngay gis ne yëg ne sax yi lislaam matale santaane ñoom dafa mel ne yu ci bari da ngay yëg ne matale gu sax tey seetlul nga seet ab ustaas wala ak nit kuy wax ci diine da ci diine lay wax nga gis ko mu wat ab sikki moom ba mu set wicc wicc wicc wicc te loolu yow boo jàngee di nga xam ne yonante bi daf ko aaye ñaara ci am sax yonante bi dafa aaye ku wat sikkim ba noppi digle ñu bàyyi ko noonu yow nga man di wax ci diine ba noppi sab sikkim nga wat ko ah nga wat sab sikim yooyu day yëg ne ne yow li ngay wax yonent bi dafa waxoon ne dee leen wat seen mustaas yi mustaas yi doon na digle sax am na ñu koy wat ndax ginnaaw yowoot yi dañ koy bàyyi noonu bu leen nuroog ñoom waaye jàpp naa ne ñun wax dëgg yàlla yenn yi doo xam lu muy nur da ngay àgg sax ci ustaad bi ngay seetaan ci biir émission bi da ngay wax ne ndax kii ab comédien laay seetaan wala ab ustaas kuy wax ci diine lay seetaan wala kuy théâtre lay seetaan loolu nag day wane ne nit ki li muy joxe te bun waxee ne al ulama warasatul anbiya yi ñoo fi remplacé yonante yi du xam-xam bu tond bii rek waaye xam-xamu taqwa boobu mooy tax ñu donn yonante yi mooy tax ñu donn waaye bu dul xam-xam bii jàng ci téere yi rek ku du ku du ab jullit sax mën na koo jàng ba man ko waaye la tax ñu donn ñu ne xam borom xam-xam yi ñoo donn yonante yi mooy ragal yàlla gi ragal yàlla gi kon nan seetaat sunu bopp kenn du ne jàngale alxuraan di fayeeku dafa araam kenn du ne di waxtaan ci diine di fayeeku dafa araam kenn du ne tudd doom di fayeeku daa araam waaye yooyu yëpp da ngay gis na buntu yu ñuy fayeekoo la yu ñuy laaj xaalis bu dul laaj directement danañ def seen propagande boo xamante ni day wane ne danga leen a war a jox dara tey ci masala ci jàkka ji ki dikk di mayee ab soxna ñu ne ko danga joxe nangam da nga joxe nangam ndax yonente bi noonu la daan laajte ci jàkkaam ndax loolu la daan laajte ndax ki ni tuddal doom ñu war koo tudd muy ku ñëw di xeet ku bokk ci xeetu yonante bi dollee ko ci ñu war koo wutal aw tur ndax kooku daa jar ñuy joxe nangam néew bi fi jóge ñu war koo miraas dëgg la war na nañoo yéwénal te loolu dañ ko war a yéwénal ginnaawam moom amatu benn responsable ñi des ci ginnaawam ñoo ko war a yéwénal ndax kooku danga nga cee war a fayeeku dëgg la sa temps dina ca dem nga bàyyi sa jot gépp nekk ca waaye ana lan ngay liggéeyal yàlla loo xam ne da ngay liggéeyal yàlla rek jóg fëgg say loxo dem bàyyee sa bopp yàlla hmm? ah waaye bu fekkee lépp lépp lépp lislaam danga nga koy fayeeku lépp da ngay fexe ñu protocole yow doo am benn métier sax boo xam te jàng rek ak di waxtaan ci diine rek du métier yonent bi salaa salaam yëpp moo ko doon def moo doon jàngale waaye guerre ba mu ñëwee moo cay jiiru nga gis ñoo xamante ni ay daara alxuraan la ubbi wala ñu am ko. wala ñu fexe ba wut terrain suuf di wax nit ñi nan indi ñu tabax ko nit kay da ngaa war a góorgóorlu ba nit ñi fekk la xam ne ci diine ngay yëngu ñu jàppale la loolu kenn du ko bañ kenn du ko bañ kenn du bañ yor sa terrain di jàngale alxuraan wala sa daara nit ñi jimb waaye nga def ko propagande waxtu wu nekk yaa ngi woote ay congrès ay conférence ay nangam yoo xamante ni li nga ci jublu lépp lépp lépp mooy lu dajale pour ñu defaat ko ci nga mën cee am dara. nit ki jàngale diine yi tamit kenn du ne du solo kenn du ne du toilette kenn lislaam dafa bëgg ko xay ku set mais nit koo xam ne daanaka modd nga ko def mbub moo sol tey indiwaat meneen mbub moo sol meneen nangam booy wax ci diine wax naa ko kenn du la xàmmee ak comédien dañuy àgg sax danaa ustaas diw sàngam moo gën a jonge ñi lay def la conférence sax léegi xam nañ ko ba léegi ki ci dàq comédien moom la ñuy gën a woo mais kii wax ci diine wax ju leer duñ ko woo waaye ki gën a nekk oustaz bi ci gën a nekk comédien dàq cee théâtre moom la ñuy woo loolu nag dara jëru ko dara lislaam kenn du ko foye li nga ci xam lu mu néew néew jottali ko ne la ko yonante bi ni mu ñëwee ci jibril jibril jottali ko wala yonante bi jógal ko ci ñu jëlee ko ci yonante bi mu jox ko saxaba yi jottalee ko noonu sa sa jaan wàcc na bu nu jëfee wàcc na bu nu jëfee wut sa jaan wàcc na waaye nit ki du caagee nag danga ko yor mu doon loo xamante ni matériel rek nga ciy wut ndax li ngay wax yow di nga ci am ñaari responsable xaalis bi ñu la jox dina laaj nan lan la ko joxee ak nan nga ci jote waaye xam-xam bi nga doon jàllale ndax xam-xam bi ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam indee diine ni nga ko jàllale wala yow da nga doon seet rek ni mu la gën a neexee wala ñi ngay waxal nan nga war a waxee ñoom ba dara mën a génn ci ñoom jàpp nañ ne loolu du mbir mi du mbir mi du mbir lii mbir mi fexe ba yow nga defaru ñi lay dégg defaru waaye bu ñu demee kaskat yii théâtre yi am ci télé bi ñoo gën a ëpp fuuf jeexital ci nit te lii la koy wax négal ba benn jàll bu subaa ñëpp ngay gis ñu koy waxtaane ban ustaas ngay dégg ñu koy waxtaane daanaka doo ko dégg loolu li muy wane rek mooy ñàkk fees place bi rek place bi boo ko feesul ak lala la ca dugal bu fekkee ala la ca dugal aku tur loolu mën nga koo am ci kaw waaye nag ñaar yi ci baax mooy am ci yàlla am ci ëllëg yomal am saaba yi de boo gisee ñu ñu ragaloon jottali yonante bi salaa salaam yonante bi daf doon wax ne képp ku jottali benn addis boo xam ne danga nga ma cee duural xamal na sëb gétt ma ngi ci digg sawara xoolal saxaaba yu mag yi Aboubacar li ngay dégg ñu ne soloo ko xaddis Omar li ngay dégg wala Aliou yooyu bariwul bariwul lan ca ragaloon mooy danoo ragaloon waxal yonante bi lu mu waxul ñun nag waxuma la yonante bi waaye li ñuy nettali ci xes sa kenn xamul nu mu toll kenn kenn kenn xissa yi sax li ci gën a yéeme mooy da ngay dégg ñu ne mag mu baax nee na ma mag mu baax nee na nanga mag mu baax fan la baaxee mag mi baax kay da ngaa war a xam mag ma tudd mag ma ñu xam ne référence la xam ne li nga wax càllale gi leer na mais mag mu baax nee na ma yow yaa xam mag mi nit ñi xamuñu ko de diine kenn du ci café kenn du ci politique kenn du ci lekk nanu ragalaat yàlla te xam ne nëbbu xam-xam suñu borom daf ko araamal yonente bi salaa salaam nee na képp koo xam ne da xam-xam-xam ba noppi di ko nëbb wa jibi mi na naar nee na ëllëg laabu sawara lan lay laabe maanaam laab goo xam ci sawara dañ koy tàngal ba mu tàng jëruñu la laabe la ko waaye nag di commercé ci xam-xam loolu tamit dañ koy aaye dañ koy aaye dañ koy aaye ndax nit ki dafa war di dawal dara ci bàmmeelam di def waaye bu fekkee yow sa mbir yëpp da nga ko wéer ci nit ñi da ko wéer ci nit nit ku xewle sax nga ne ko yow kañ laa lay defal conférence imam bi nekk ci jàkk ji sax moom i tamit loolu rek la ciy xawal luñ koy fay wala luñ koy jox wala nangam imaam war nañ ko wutal dara ustaas war nañ ko wutal dara nangam ustaas daa war a bay mën naa bay bu ma bay bu ma nee commerce dafa war a mën a commerce saaba bay yooyu yëpp lan boole woon te diine ji li fi ñëw ñoo ko kii Seydina Omar da daan def am na kum daan awanteel ci saaba yi ne ko su ma xëyee liggéey ngoon gi da ngay nekk suba gi da ngay nekk ci yonante bi loo fi dégg nga wax ma ko su ma ñëwee bu ngoonee man ma ñëw noonu la doon def ba tasaare diine ji ñoom liñ doon xam boo gisee ñoom liñ doon xam mu barkeel liñ xam lépp barkeel mooy liñ xamoon dañ daan def lu wàcc ci alxuraan ñu jéem koo jëfe te nit ki boo gisee imaamu saafi yi ne wal bu fekkoon ne moom dong moo wàcc ci diine doy na leen sëkk mooy lim dénkaane saar wi dafa dénkaane lu bari dafa dénkaane lu bari wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr dénkante ci dëgg ak dénkante ci muñ nit ñi nag bu fekkee da ngay ñi nga woo da ngay dénkanteeg ñoom waaye li nga dénkanteek ñoom du dëgg loolu day wane rek ne li ngay wax yow yaa ciy perte rek ndax yow mi toog ñu jox la deux heures de temps wala nangami jullit toog di la kii amoo looy def lu dul di leen reeloo ak di leen comédien daanaka mënoo fexe ba jàllale sa message loolu li muy tekki rek mooy yow yaa defaruwul rek nit ki bu defaroo ñaata ustaas wala lan dégg ñu ne wala boroomu xam-xam lan dégg bu yàggul rek man dégg naa benn waaye ku ci fokk yi kuy fokk koo xamante dane man fi ñu toll maa ngi sama soixante soixante quatre ans li yonante bi dundoon dund naa ko lu ma amati bonus la ba kañ ana ñi koy waar ana ñiy wax ci diine kooku def ngeen noonu rek lañ ko war a bàyyi mu taxaw di wax wax loolu di fo tàmbali sa fo bi nga amee juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at di fo ba am 64 ans loolu waroo tiit ci sa bàmmeel waroo tiit sa digganteeg sa borom kan moo ma sa dégg ñu ne diw sàngam fokk naa samay ndënd wala fokk naa sama xalam wala sama gitaar la ko waral mooy ustaas sàngam wala imaam sàngam laa dégg muy wax loolu amagul moom dégg néew na bokk néew na loolu ma dégg ñu ne la ñuy def kay mooy di ko encouragé dem ba moom ñu kenn dootu leen mën a xàmmee sax nga xam ne ñoom woyi ak waxtaanu diine yi daanaka la ñuy jël bu ñu demee ba kiy woy kiy wax ci diine saa buy joxee référence danaa tudd ab fookat fookat bu mag nit ñi message am te jaaralewu ko ci fookat loolu jàpp naa ne mbir mi du noonu ab fo fookat kenn du ko favoriser mag ñi bu njëkk dañ daan wax boo daan fo dañ lay wax demal fo yi te bàyyi sa li ngay def demal liggéey te bàyyi fo waaye nag bu ñu demee ba ci réew moo xamante ni kuy fo am ay million am ay milliards loolu day tardel réew mi rek day tardel diine ji tamit jàpp naa ne ñun ñëpp ñoo xamandoo ne diine ji am na lu ci manqué waaw ku nekk xam na ne fi ñu toll problème dëgg-dëgg moo am ci diine ji bu demee ba ay nit ay jigéen ay nangam ñaata nit bu nu wooree nii rek ñu ngi ci koor gi bu ñuy laata jeexal rek ngay dégg ñu ne la bu nu waree ba ci suba ga wala ci suuru korite ga am na fu muy tëggee am na fu muy tëggee wala am na fu ñuy defee nangam am nga xam ne kii li mu doon def ci jaamu yàlla yàkkamti na ngir def ko mu jeex ba mu demaat ci foo am jàpp nañ ne am foo bu koor gi jeexee sax dañ ko war a arrêté nangam dëgg la lu bon lu baax moom loo koor moom bu dikkee li nga doon def ci lu bon lépp da ko war a bàyyi boo ko manee bàyyi wala nga wàññi waaye tekkiwul na nag soo su koor jàllee dañ laa daganaatal li araamoon lépp déedéet daganuloo loolu point bu nu war a wax la boo xam ñëpp a ci war a wax jàpp na ne nag réew mi nag mu mel nii nag metti na loolu waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm di wane ne daal lii daal nanu xoolaat sunu bopp jekkalaat sunu toogaay li ñuy def du méccam gone métier mag la yonent bi salaa salaam mooy mag yi ñëpp li mu doon def bakkanam da ko ci daan teg da ci daan teg ay kii kiyam teg bakkanam saaba yi dañ ci daan teg ñoom pour diine taxaw ñoom ñu dee sax moo leen gënal seen dund gi dañ ko daan sacrifice na saxul mawta maawal kullu minhum sajwa yonent bi ne sëñ Tuubaa nee na duñ daan njëkkante dee gi ngir diine taxaw waaye bu ñu demee ba ñun sunu diine sunu bakkan nu gënal sunu diine sunu alal la nu gënal sunu diine loolu am foo la rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ki nekkoon ci caméraman bi Serigne naa la njaay ki nga xam ne moo doon réaliser émission bi soxna Awa Ndiaye soxna Khady Niang moo doon def montage bi ñu jox leen daje ci yeneen jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. مرتجا منة لنا